boo tëddee doo nelaw te yaakaar nga di boo fi jógee musiba dal la moo tax toujours la ñuy bëgg woon ñoom mooy ñoom seen fulla gi ñuy wane ci ñàkk nekk ci dëgg moo ëpp doole fulla gi ñu war a wane ñun ci nekk dëgg gi ñu nekk dëgg xam nga ndax sénégalais dégg nañ li ma wax ñépp xam nañ ñu nekkuñu ci dëgg yoruñu réew mi ci dëgg alalu réew mi randal nañ ko lii jaay nañ ko tubaab yeeg ñeneen ak ñeneen tëj nañu ay nit ci loo xam ne du yoon duma nañu ay nit ci loo xam ne du yoon rey nañu ay nit ci loo xam ne du yoon kon loolu lan moo gën a garaaw lool ci ñàkk nekk ci dëgg waaye malgré tout moom bëgg nañu gëmloo ni moo ñu ëpp fulla ñun gëm nañu ñoo nekk ci dëgg ci yéene gu ñu am ci réew mi ci jàmm gi ñuy dawal ci réew mi ci bëgg-bëgg gi ñu am ci réew mi ak ci Afrique dama ne bu dee loolu am na ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp moo tax pexe yi bëri na weer yi di ñëw kenn ku nekk na fagaru waajal boppam takku ndax ña ngay pexe ci wàllu terrorisme wàllu terrorisme fabriqué nañu seeni dossier yu leen neex jàpp ay nit barki démb rekk kenn ci ñi ñu jàpp naan dañ leen di tuddee xaw ma lan spécial woote na de la prison ne fi mu ne nii bés bu ne dinañ ñëw def leen pression ne leen changer leen seen déclaration wax leen rek ni Ousmane Sonko moo ne suñu gannaaw moo ñu yónni moo ñu defloo moo ñu transfere xaalis bi bu ko defee ñu yóbbu leen ci procureur ou arrangement démb rek tey wax naa ci ak avocat yi ma nii. dem si yàlla François Mancabou la tax ñu torturer ko ba bakkanam jaar fa li may wax nii ay ñi ko jege ñoo ma ne moom moo leen ko wax ñu ko jege ci ay conseillers am ne dañ ko ne il faut nga signer PV boo xam ne da ngay wax ni yow da ngay liggéey ak Ousmane Sonko. que sooy dem Casamance d'ailleurs moom ngay dem seeti pour jël ay instructions ka yow en tant que expert yaa doon organiser moo tax daaw bi ñu buggee dugg këram ñu amoon jafe-jafe yow yaay wook momoo nga xam ne ci samay garde port la di ko jox ay instructions parce que yow xam nga suñuy technique mu lànk ne leen lii duma ko mës a signer parce que mësumaa gis sun ko lu dul ci télé xaw ma ko. musuma wax ak moom ci téléphone te man om d'honneur la ci deret ak ci formation kon duma ko signé looloo andi toroxal yiñ ko toroxal ba bakkanam rot ci may seede ci kanamu famiyam ne ñoom ñëpp war nañoo am fierté ci nit ku mel noonu yàlla métiim xam ne ni musuma gis François Mancabou waaye ñaanoon naa yàlla mu daj dajale ma xamle ma ak nit ñu mel noonu parce que réew néew na léegi ci senegal ña ngay fenk dossier terrorisme bis bu ne ñu jàpp benn nit yokk ci ña ngay fenk dossier rébellion déggoon ngeen fii Ousmane al naka jaata Alkusin jaata Kabiling ñu dem jël ko ne kooku it ñoo ngi koy togg pour fexe ba avoué ko ay mbir ne ko waxal ni yow am nga ay lien ak Ousmane Sonko ña ngay fenk dossier 94 milliards ndax ñoom avocat yi ñu dem di di saisir sax ay ay français ak yooyu xamuñu ni man yéeg naa ko dossier 94 milliards dossier siif dem nañ ba xam ni benn avocat bu mat avocat Sénégal du dugg siifu ñàkk fayda yooyu ñu dem di uti ay avocat France te consulat bi ci boppam kuy liggéey ci consulat bi moom mooy porter loolu ci dossiers yoo xam ne nañ c'est des dossiers privés ña ngay waajal loolu également façon dossier bu ne ñu ngi koy waajal nee nañu xañ nañu léegi Ousmane Sonko immunité parlementaire donc saa su génnee di wax dañoo am seen benn laboratoire boo xam ne kàddu gu ne ñu ngi koy saytu pour ban kàddu la ñu mën a wëlbati dem tribunal pour am diffusion de fausses nouvelle wala diffamation parce que xam ngeen lan moo yite bi du jàpp Ousmane Sonko tëj ko kaso de ndax Ousmane Sonko biir kaso moo gën a nekk xal nag Ousmane Sonko ci biti du loolu mooy seen problème seen problème mooy nu ñu fexe baam benn condamnation même su dee au sursis pour que Ousmane Sonko dootul nekk candidat en 2024 moo tax ma ne kenn ku nekk ci militants yi ak militantes yi na fagaru waajal boppam parce que Macky Sall waruñoo ëpp fulla bu loolu amee rek mooy li ñuy woote ci souveraineté bi ñu bëgg ñun indépendance véritable bi ñu bëgg ci suñu réew moomaat suñu bopp bi ñu bëgg kon loolu du dëgg si ñun li muy def yépp nag mi ngi ko lal ci ñett ba ñeent mu ngi ko lal ci police wala ñiy commandé police mu ngi ko lal ci gendarmerie wala ñii commandé gendarmerie mu ngi ko lal ci benn groupe magistrat boo xam ne ñépp xam nañ leen waaye mi ngi ko lal ci benn partie média bi nga xam ne saa su ne ñu xëy jox leen ne leen bind leen lu bon ci Ousmane Sonko saa su ne ñu def gros titre bind lu bon waaye c'est perdu ndax koo xam ne yaa ngi koy fexeel boobu ba léegi tuumal nga ko lu ne yàq nga deram te su génnoon léegi ci ci taxaw ci trottoir bi meeting am fii nga war a xam ni sa pexe na na sax na waaye bu ñu leen xeeb ci seen i pexe rawatina nag bu ci France dugge gis nga suñu toogee Sénégal. bay wax naan France kii la bëgg comme candidat kii bëgg ko comme candidat rek wane na ñun tardé nañu loolu doo ko mës gis ci pays yi nga xam ne Angleterre moo leen colonisé woon amul Nigéria amul Ghana amul feneen suñu demee ba journaux français yi nga xam ne ñooy porte-voix de la politique France africaine ay le monde diplomatique RFI France 24 ñoom ñëpp ñëw Sénégal naan dañuy dem ci benn affaire privé di interviewer wala def ay article naan la France ne veut pas de Ousmane Sonko et cetera veut pousser Macky vers ceci nangam nangam ça veut dire que ñun duñu duñu réew bu indépendant est-ce que France bu amee élection am na benn sénégalais bu am sañ-sañu toog fii naan ñun de Sénégal diw diw est-ce que président Sénégal sañ na sax naan man diw laa bëgg mu nekk euh, président de la République en France lan moo tax ñun ñu ñàkk fayda ñàkk fulla ñàkk personnalité ba tey ñu ñuy patam patamee suba ngoon loolu mooy laaj bi dem nañ sax bañ ne seen dernier article bi ñu bind nee nañu Poutine gagnerait à se rapprocher de songo ma feddali benn mbir gis ngeen ñun ñi amul benn benn benn benn puissance étrangère bu nekk suñu gannaaw amul benn benn réew étranger bu ñu amal relation benn président en exercice bi moo mus a waxal directement président africain bii la muy gine awma benn lien muy ñaari Guinée yu bokk awma benn lien avec une puissance étrangère waaye nag ma wax lu leer tey jii su ma doon dajeeg Poutine Poutine suba suba suba su ma amoon occasion dajeeg Poutine damay dem dajeeg moom waxtaan ak moom parce que je suis indépendant su ma mu doon dajeeg Biden dinaa dem dajeeg moom su ma mënoon dajeeg Buhari dinaa dajeeg moom te bu ma demee dañuy toog bët ak bët waxtaan ku nekk wax xalaatam foofu lay yem ku ma mën a dajeel dinaa dajeeg moom man duma ku ñuy orienté wala ku ñuy wax kooy waxal ak koo dul waxal je suis un homme libre indépendant dans un pays supposé libre et ba tax ñuy wax militants yi ak militantes yi nañu xam ni lii lépp lu muy gën a firndeel mooy candidat France ñëpp xam nañ ko ñi fi France teg xam nañ leen lañu liggéeyal France xam nañ ko ñun nag duñu candidat France te àdduna du dox ba ñu dem los gombaanu di sukk ci kanamu France àdduna du dox ba ñu sukk ci kanamu benn réew ci àdduna teyit na leer ñun du peuple français la ñu amal problème déedéet biir France am na ay nit ay homme politique ay universitaire ak ñeneen ñoo xam ne discours bii ñuy wax ñun moom la ñuy wax biir France am na jarul ma leen di cité xam ngeen leen am na ci ñoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom suñuy kuréel daje nañu ñu ngi waxtaan kon du problème mu peuple ak peuple parce que yi dañu gaaw ci raccourci mais problème mu régime yi fi nekk ci France politique bi ñuy doxal duñu nangu mu wéy fii biir Sénégal moo tax li may daanelee mooy waxaat ko France. nañu génn ci suñuy mbir 2019 dama dañu génn ci élection bi ma ne ma ne waa France bu dee am ngeen dégg-dégg di ngeen xam ni li juddu biir Afrique caaxantewu ko xoolaat leen seen bopp bu ngeen buggee continuer am de relation ak Afrique lu ko may di ngeen génn Afrique ci anam goo xam ne du gën ci yéen dafa mel ni boobu ba léegi France dégguñu moo andi li xew Mali moo andi liy xew jamono ji ci senegal moo indi liy xew caat mooy indi liy xew Guinée mooy indi liy xew fépp foo xam ne Afrique boo xam ne France moo ko dumee woon lii lañu bëggoon waxtaan ak mbokk senegal wax leen ni désormais nañu xam ne ñi war a liggéey yépp dinañ ko continuer liggéey waaye dañoo def kap ci 2024 te bu soobe yàlla ñaan nañu yàlla te am nañu espoir mooy yaakaar gu rëy ni bu soobee yàlla dinañu gagné élection boobu. li may daanelee nag question d'actualité la mooy fan yi yëpp ñu ngi wax lu jëm ci hôpital de Dantec Sénégal dafa bindoon noo xam ne bu dara xewee rek kenn ku ne day bëgg nga wax ci jamono ji mu bëggee nga wax donte nekkuñu woon fii sax ñu ngi doon suivre li xew yëpp ci hôpital ba li ma ciy wax mooy bu njëkk bi dégg nañu version yu baree baree bëri ci mbir mi dégg nañ ni gàllankoor yu bëri dina dina am